jërë ngeen jëf sunu mbokku internet yi mbokk yi maa ngi leen di nuyu eh, yéen ñi nekk ci biir réew mi ak yéen ñi nekk ci bitim réew mbokk yéen a ngi ci Bawol Info TV Abdou Khadre Seck moo nekk ci kàddu gi tey di altine fukki fan ak eh, juróom-ñeent ci weeru août atum 2024 ñu dikk ak yéen ci jàngatu bis bi jàngatu bis bi nag dinañu wax ci ONAS ak euh, tuuma yi nga xam ne Cheikh Dieng mi nekkoon directeur généralu ONAS tuumal na ko ministre Cheikh Tidiane Dièye ndax ba léegi coow li jeexagul comme ni ñu koy waxee pënd bi wureegul. Euh, dinañu wax tamit ci lu jëm ci wàllum presse bi ak kàddu yi nga xam ne député Cheikh Thioro Mbacké tey ji yëkkati na ko si ginnaaw émission bu ñu ko euh, invité woon. loolu si lañu ñu bëgg a wax tey ci jàngatu bis bi waaye balay booba rek mbokk yi ñu mas massaw bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom la seeni mbokk loru ci accident yi moo xam ñi ci faatu la moo xam ñi ci am ay blessé ñi ci faatu ñuy ñaan yàlla sunu boroom sotti leen ak njéggal ñi ci am ay gaañu gaañu ñuy ñaan yàlla suñu boroom fëgg seen bopp bañu mën a delluwaat ci seeni activité accident yi nag jamono ji gis nañ ne dafa bëri lool ci senegal am ñu bari tamit ñoo xam ne euh, faatu nañu ci ñi nga xam ne ñoo ci am ay gaañu gaañu tamit jàppale leen lu war la ndax accident metti na métti goo xam ne blessé yi bu ñu amul ab taxawu rek wala état dugal ci loxoom mën nañu fa jóge am ay laago yoo xam ne euh, seen dund euh, dina jafe lool ci àdduna ba tax blessé yi léeg-léeg ñu leen di euh, gestu dafay am solo ndax dina bari ñoo xam ne danañ am danañ accidenté ci oto nekk ay blessé grave waaye pour ñu faju dafay nekk nag léeg-léeg loo xam ne dafay jafe ñooñu dañ leen di faral di fàtte waaye accident yi tamit gouvernement bu Sénégal rawatina ministre des transports euh, ñoom ñoo ngi taxaw pour jël ci ay mesures ngir accident yi daal di euh, jeex bu jeexul tamit wàññeeku bu baax a baax mbokk yi ñu daal di wax ci kër gi di ONAS euh, ONAS nag euh, dafa am ñu bari ñoo xam ne bokkuma si ak ñoom gis-gis ndax léeg-léeg dafay am ay tuuma yoo xam ne day dépendre si tuuma yi ni muy toll day dépendre si kilo la koy tuumaal ndax tey li xew ONAS ak li xew poor bu doon ab journaliste moo ko wax wala ñu ne ab opposant ñoo ko wax au moins danañ mën a comprendre ndax li opposition di wax lépp ak li journaliste di wax lépp ku ci bëgg di tontu suba ngoon guddeeg bëccëg mën nañu ne ci tontu ngay dëkk dootal liggéey waaye ONAS ki tuumaal ministre bi kooku confiance bi nga xam ne moom la ñu am confiance bi président Bassirou Diomaye fay am ci Ousmane sonk ba def ko premier ministre confiance bu toll noonu lañu am pour nommer ministre Cheikh Tidiane Dièye ci ministère boobu am confiance bu ni toll nome docteur Cheikh Dieng mu jiite ONAS ONAS di direction boo xam ne direction bu am doole la ci Sénégal mu yor lépp lu jëm ci wàllum assainissement ONAS mu nekk kër goo xam ne euh, Sénégalais yi dañu yàgg dégg lu leen naqari ONAS ndax ci nguurug Macky Sall président Ousmane Sonko dafa yëkkati woon ay kàddu wax ne lu ëpp sept cent milliards yoo xam ne. Macky Sall ñi mu àndal wax nañ ne dugal nañ ko ci assainissement Sénégal waaye euh, Ousmane Sonko dafa gisoon ne xaalis boobu ñu wax fa mu war a jaar jaaru fa ak jaaxaloon na Sénégalais yu bari tamit milliards yi ñu wax ONAS Ousmane Sonko sàkk woon sax ay jamono directeur u ONAS jamono jooju di Lansana Gagny Sakho pour mu toog ak Ousmane Ousmane Sonko sàkk woon dem loon dem ONAS pour ñu leeralal ko xaalis bi fan la dugg ba Lansana Gagny Sakho d'accord woon recevoir Ousmane Sonko pour leeral ko ministre euh, ba fa nekkoon jamono jooju lànkoon loolu après par la suite ñu jëlee fa euh, Lansana Gagny Sakho pour vous dire que ne ONAS dafa yàgg euh, dafa yàgg bëri coow léegi nag Lonase googu ñu jël nommé fa nit même Mamour Diallo bi mu jiitee Onas dégg ngeen tuuma doon gàll ci ndoddam ña fa doon liggéeyee di ñaawlu yorin bon wi Mamour Diallo yore Onas Onas googu nag euh, ñu jël Cheikh Dieng yóbbu ko fa nome ko fa ñu jekk-jekk dàq seex Dieng bi ñu dàqee Cheikh Dieng mu jaaxal ñu bari ñu tudd tudd mbirum oto tudd mbirum marché Cheikh Dieng génn def conférence de presse euh, ne se ne na ONAS gi ngeen doon dégg de ñu ne dañ fa def ay milliards milliards milliards te ba léegi inondation di am ONAS googu dey la la fa metti woon ba léegi ma fa docteur Cheikh Dieng wax loolu ndax euh, Sénégal dañoo jàpp ne mboolem lu ñu metti woon rek ci nguurug Macky Sall waratuñoo metti ci nguur gu bees gi léegi docteur Cheikh Dieng bu waxee ne dafa am ñaari marché ndax mbirum marché mbirum marché gré à gré mbirum marché entente direct mbirum waxtaan ba jubóo yaama neex dafa yàgg am ci Sénégal ñu bari amee ci xaalis marché gré à gré ak ay conflit d'intérêt ci ay marché loolu euh, bu ñu xëyaatee di ko bind sax ci ay journaux di tudd marché gré à maanaam baatu marché gré à wala marché conflit d'intérêt diirub Jomaay ak Sonko wooñu woon koo sax gis ci presse bi kon buñ ko gisee ci presse bi dafa aaje ay leeral ndax nag ay tuuma day toll foo xam ne même bu dul sa personne yow am nga ay mbokk mais au delà de say mbokk bul ne ku wax rek ku ku tuuma ku wax rek mënuñoo tontu ñëpp wala amuñu jotug tontu dañuy liggéey ndax ki tuumaal docteur Cheikh Tidiane dafa jiite woon ONAS taxaw ne dafa am ñaari marché dafa am ñaari marché ñu jox ko ñaari entreprise entreprise yooyu gañe ay marché ci appel d'offre Cheikh Tidiane weñ loxo bëggoon a weñ loxob directeur bi nangu marché yooyu jox ko ñeneen loolu la Cheikh Cheikh wax muy loo xam ne ku ko ndawal tamit ndëwut ndax mbirum marché loolu euh, maanaam ku ko xam-xam ne Sénégal li ñu tardeel bokk na si entente direct ak ay marché gré à gré ay marché yaa neex ay conflit d'intérêt nangam nangam kon loolu damaa jàpp ne même wax na ci wàllum oto bi ne dafa am benn projet ONAS projet bi ñooñu ñoo war a jëndal oto directeur bi même ONAS génn nañu weddi loolu waaye dafa am loo xam ne dafa yell ci ministre Cheikh Tidiane Dièye mu génn leeral ci sénégalais yi def ci conférence de presse leeral ndax dafa am ñu bari naan euh, waxi Cheikh Dieng waxi Cheikh Dieng du ndaw dafa nekkoon directeur général ñu am confiance ci moom nommé ko ki nga am si moom confiance ba jox ko kër gu toll ni ONAS kooku ay waxam waroo koo doyadal boo doyadalee ay waxam rek kon confiance bi nga amoon ci moom ba fal loolu lu jara xalaat la ndax du sàmb sugor gay gu jugee fële rek wala syndicat bu jugee fële wala opposant bu jóge fële wala journaliste bu jóge fale déedéet kon man li ma jàpp mooy ministre Cheikh Tidiane Dièye war naa leeral pour seetal boppam war naa wax pour dimbale Ousmane Sonko ak Jomaay war naa wax pour sénégalais yi nga xam ne seen xel ma ngi jiixi jaaxa Cheikh Tidiane Dièye war na ci indi ay tontu ci mbir moomu war naa indi tontu ne ñaari marché yi Cheikh Dieng wax ne daf ko jël jox ko ñaari entreprise gré à gré entente waxtaan bu juboo dëgg la wala du dëgg ak li tax ñu dàq seex Dieng lim lim la lànk loolu moo tax ñu dàq ko dëgg la wala du dëgg ndax aw askan boo leen jiitee day am yoo xam ne bu xewee day aaja leeral amaana nag dina am yoo xam ne mën na koo bañ a jar waaye day am nag foo xam ne bu fa tollee day jar nga leeral ko ngir askanu Sénégal kon man jàpp naa ne li docteur Cheikh Dieng wax docteur Cheikh Tidiane Dieng war na si indi leeral du ñu nag du ci indi leeral ndax léeg-léeg moom mooy xam agenda am mooy xam ñi koy ANCAR ñi koy conseil si wàllum communication ndax instant bi ak fi liggéeyi toll rawatina Touba ak màggal gi ndax polémique pour heure bii la kañ la ci war a tontu loolu aussi moom mooy xool bu dee war na cee tontu kañ la ci tontu tey wala suba ak lu mën di doon daal jàpp naa ne war na see indi ay leeral ci tuuma yi nga xam ne Cheikh Tidiane euh, Cheikh Cheikh Dieng gàll na ko si aw ndoddam ndax tuuma yooyu du Cheikh Tidiane Dieng laal directement mën naa laal gouvernement bi te mën naa jeexi jaaxaloo ay xelu sénégalais yi nga xam ne. Euh, ay xelu Sénégal yi nga xam ne dañoo bëgg rupture am ndax nguurug Sonko gi ak nguurug Jomaay gi dafa am lu tax Sénégal yu bari bëgg Ousmane Sonko mooy Ousmane Sonko lu jëm ci wàllum transparence lu jëm ci wàllum jub maanaam jub li ñu bari njort ci Ousmane Sonko tax na ñu bari bëgg ko ndax Ousmane Sonko ak lu jëm ci wàllum transparence wàllum leeral ndax Ousmane Sonko lim ëpp lu mu dénoncé lim ëpp lu mu ñaawlu mooy yorin wu bon luubal alalu réew mi ay marché gré à gré ay xeet yu demee noonu kon jàpp naa ne su dee ab ancien directeur moo génn tuumaal ab ministre yàlla na ministre boobu tontu euh, loolu lañ bëggoon a wax ci. loolu nga xam ne moo am ci euh, ci ONAS euh, leneen li nga xamante ni aussi bëgg nañ ko wax mooy journalistes yi presse bi organe de presse yi ñu bari dañ naan nguurug Jomaay dañoo am problème ak presse bi tey problème bi am nii jàpp naa ne du problème mu yi mais patron de presse yi ndax Euh, lu jëm ci wàllum fayum impo député Cheikh Thioro Mbacké tey dafa ne sax képp koo xam ne fayoo impo si kaso bi nga war a jëm dañ laa war a dugal ci kaso bi mooy délinquant yi nga xam ne dañuy luubal lu jëm ci wàllum impo luubal lu jëm ci wàllum impôt nag mooy war a fay impôt fayoo impôt te loolu nag moom la yoon wax impo dafa nekk loo xam ne ala kulli xaal kenn ku nekk daf ko war a fay patron de presse yi nag li tax ñu am ay jafe-jafe dañ koo tàmmut maa ngi mel ni ku tàmmut ku tàmmut aw naaj maanaam tàmm nekk rek ci kilim bi ba mu jekk-jekk ñu génn la ci naaj bi doo mën a yàgg ci naaj bi mais il faut que patron de presse yi jéem a adapté wu pour naaj bi pour chaleur bi ndax Ablaye Wade leen a bàyyi woon ci kilim bi Macky bàyyi leen ci kilim bi Sonko ak Jomaay ñëw na leen jub jubal jubbanti liggéey lañu woote te liggéey lii ci kër gi nga koy defee lii ci naaj bi nga koy defee ci misaal léegi nag ñooñu boo leen bëggee fayloo am impôt te musuñu te tàmmuñu ko woon man na leen a metti waaye tamit ñoom ñoo war a góorlu xam ne ni seen morom yi fayee impôt noonu lañu war a fayee impôt ndax patron de presse bi euh, yow journaliste bi sa liggéey lu mu am am am solo ndax yaa ëpp solo médecin bi yor clinique bi nga xam ne clinique privée la di di faj ay nit ñii war a am doom mu fexe ba rawale leen te ñooñu ñoo ngi fay impôt ndax bala ngay am jotu liggéey liggéeyu journaliste il faut nga am santé te ñiy tax nga am santé ñooñu dañuy fay impôt yow patron de presse bi tamit wala yow journaliste bi li tax nga war a fay impôt mooy ki nga xam ne dafa dem ubbi école privée di jàngale xam ne bala ngaa nekk journaliste dangaa jàng ki la jàngal ba nga nekk journaliste kooku ma ngi fay impôt kon ki lay jàngal defal la formation di école privée bi di fay impôt ki lay faj di clinique privée bi di fay impôt kon war ngaa mën a fay impôt euh, ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne aussi ñoo ngi fay impôt dama ko joxe exemple boobu rek kon li nga xam ne moo war a am ndax ci àdduna bi yépp mooy joueurs yi footballeurs yi boo demee ci bitim réew club yu mag yi entraîneurs yi da ngay dégg euh, ñu leen di topp ci lu jëm ci wàllum euh, wàllum impôt ku ci def ak ndëngate dana la teg ay daan ay sanctions yoo xam ne mara détail yi mais mbirum impôt Sénégal rek boo xoolee presque ñoo koy kafe wala ñoo koy foofee kon euh, patron de presse yi ñoom dañoo sàkk woon ci Macky Sall mu baal leen impôt comme ni mu leen ko daan baalee effacé jomaay ñëw na leen ñoom ñu ñëw ne jomaay dañoo bëgg nga effacé jomaay ne leen effacé duñ ko def fii effacé amu fi fay moo fi am nan ngeen mën a fayee nag loolu moom luñ mën a waxtaane la kon patron de yi ñoo war a xam euh, ñoo war a dem waxtaan ak waa direction des impôts xool nan la ñu fay mën a fay man ko faye su ko defee euh, su ko defee jàmm na ñooy kon mbokk ñu leen di sant di leen di gërëm.